cant ñeel ni yàlla mii boroom mbindeef yi tey boroom lépp mu ngi wax ci alquraanam ju tedd ji ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduun moom yàlla mu ne bindul jinne ak nit lu dul ngir nu jaamu ko mu wax ne maa uridu minhum min rizqin mu ne moom soxlawul ci nit ñi ñu koy wërsëgal wa maa uridu ay yuti wa maa uridu ay yutimuun mu ne mu ne itam soxlawul ci ñoom aajowowul ci ñoom ñu koy leel maa ngi koy santate te moom mooy ki moom ak cant moo ko yeyoo itam may seede ne amul benn buur bu nu war a jaamu dëgg ku moom yàlla di ko séedeel weetaay ci nguuru mbokk kenn tey seede ne sunu sang Muhammad ab jaamam la dib yonentam yal na ko yàlla dolli teraanga ki xéewal te dolli ko mucc ak barke moo ki ñañam ak i saxabaam mboole seen maa ngi leen di dénk yenn jàmm jàmm yàlla yi di ko dénkit sama bopp ragal yàlla mu màgg mi te di leen ñaax itam ci topp ko ginnaaw loolu yéen way gëm yu tëdd yi naka li nga xam ne mooy gis bi nuy gis weeru koor wi ci asamaan si loolu signal la bu fort boo xam ne day wane ne jullit bi nag mu ngi war a tàmbali xeex xeex ak kan xeex bakkenam jullit bi mu ngi war a sóobuwaat nag ci beneen jàmmaarloo boo xam ne du ko defa kenn lu dul mook bakkenu boppam ngir nattuwaat li nga xam ne mooy pas-pasam nattuwaat ak dogoom te ñaar yooyu jullit bi soxla na ko ci diineem soxla na ko ci àddinaam ndax nit ki lépp loo xam ne yaa ngi cay nekk ci lu baax bu fekkee sa pas-pas dëgërul bu fekkee sa dogu dëgërul loola jële la ca walla wëlba ci la sa day mën a yomb koor nag mbokki jullit yi day tàggat ba kenn yi koor day dëgëralaat pas-pas yi koor dina def ci xol yi aji oor yi ak dogu bu dëgër ngir ñu mën a bàyyi li nga xam ne moom mooy bànneex yeeg bëggi bëggi bakken yi bal koor sax dina def ci xol yi aji oor yi ñu mën a muñ li nga xam ne lu dagan la lu ci mel ni lekk ak naan ak mbokki jullit yi koor dina def ci jullit bi mu yar boppam ci jëfee yiw yi ak jëf jëf yu baax yi ak gën a dolli ak mbaax dolli lépp loo xamante bi nii luy jëf ju baax la joo xam ne yàlla ak yonente bi digle na ko loolu moo tax nu war a profitoo fexe màng li nga xam ne moo nekk ci bés yi te ay bés rekk la nag ay bés la ñu ko tàmbalee di wañ te ay bés la yu limu yoo xamante ne bari na waaye bariwul dara dara ñu war cee profitoo nag ngir xañtuwaat li nga xam ne mooy bunt yiw yi ngir itam taxawaat ci jëfe mbooleem li nga xam ne moom mooy ngëneel yi te bokk na ci la ca jiitu muy jëf yu baax jëfi ngëneel yooyu bokk na la ca jiitu mooy jullit bi am pas-pas dogu ci njaalbeenu koor gi nii ci fas yéene na woor weer wi koor gu sell fas yéene itam taxaw ci guddi weer wi ci ay xeeti jaamu yàlla rawatina naafila yi ngir sàkku la nga xam ne moom mooy yool bi nekk ci loolu te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day dige na nee na képp koo xam ne taxaw nga temm ci woor bëcc weeri koor wi ni ko yàlla diglee te itim taxaw temm ci di jaamu yàlla ci guddi weeri koor wi rawatina naafila yi te mu doon loo xam ne yaa ngi ko teg ci ngëm gu wér ak Yakar yaakaar la nga xam ne mooy yool ba ca yàlla dige yonent bi dige na nee na ku def loolu yàlla dina la jéggal mboolem sa bàkkaar ya nga jiitaloon ñëw na ci saxiixay ni mu wax ne man saama ramadaana imaanan waxtisaaban mu ne képp koo xam ne woor nga weeru koor gi te nga teg ko ci ngëm gu wér gëm ne farata la gëm ne lu war la ci yow yàlla moko digle ak itam nga yaakar gu wér li ci yàlla dige ci yool néna ghufira gufira lahu ma taqaddama min zanbihi yàlla dina la bal mbooleem la nga jitalon ci ay bakkar mu wax itam ne man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi mu ne kep ko xamné yaangi taxaw ginnaw ba nga ba nga ba nga ci matal farata bi ci bëccëg gi guddi gi nga taxaw ci jaamu yàlla taxaw ci naafila yi nee na yàlla dina la jéggal mboolem sa bakkaar ya nga jiitaloon te sunu sang imaamu daayir mahdi alayhi salaatu wassalaam de mu ngi nuy wax di nu digal dénk la nga xam ne saa su nekk nag ci koor ak lu dul koor waaye loola dër koor da cay rawati mu wax ne na ngeen sonnal seen cëri yaram ci julli nangeen nangoo sonnal seen cër yaram ci julli ak koor te di sellal seeni alal ci azaka son nangoo sonnol cër yaram ci julli ak koor bu dee ci weeru koor di oor di di dékku di oor weer bëccëg yi di ko dékku bu baax a baax a baax ngir ngir gëm ne lu war la ak ngir yaakaar yor waaye tin di góorgóorlu di matal li nga xam ne mooy naafile yi ci ci ci ci bés yépp ci bés bu jëkk ba ba ca bés bu mujj guddi gu jëkk ga ba ca guddi gu mujj ga loolu de ku ko def moom ci weeru koor jëfee nga dénkaaneb Seydina Limaamu alayhi salaatu salaam bii mu wax ne na ngeen nangoo sonnal seen cër yaram ci julli sonnal seen cër yaram ci koor ak sellal seeni alal ci azaka naafile yi nag képp koo xam ne taxaw nga temm ci topp ci imaam fa mu tàmbalee ba fa mu jéexale boo ca yemee képp mel na ni taxawal nga guddi gi yépp di ko naafila loolu sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax barakallahu lii wa lakum wa nafaani wa iyaakum bil ayati waziril hakim innahu taala barum jawaadum xafaru cant gépp cant ñeel na yàlla tabaraka wa taala sant naa ko cant gu bari gu sell gu nu barkeel seede naa ne amul benn buur bu nu war a jaamu mu tegu ci dëgg ku dul moom yàlla seedeel naa ko itam weetaay ci nguuram bokkoo kenn seede ne muhammad ab jaamam la du yonentam yàlla na ko yàlla dolli teraanga ak xéwal dolli ko mucc barke moo ki ñoñam ak i saxaabaam mboole seen ginnaaw loolu yéen soppe yi jullit yi na ngeen xam ne yàlla amul soxla ci ñun ngir boppam amul soxla ci sunuy jëf lu jëm ci boppam ndax moom yàlla mooy ki oomal ki wëlis ñépp wëlis lépp soxlawul kenn pour boppam soxlaalul kenn dara pour boppam mu ngi wax loolu mu ne yaa aju naasu yéen nit ñi ñépp antumul fuqara ilallah yéen yéenay way ñàkk ñi yéen yéenay ñu néew la ñi yéen yéenay ñi nga xam ne da ngeen di aajowoo faw ngeen aajowoo jëm ci yàlla amma moom yàlla nag huwal ganiyu mooy aji omal ji mooy ku doyliku ci boppam alhamid mooy ki nga xam ne mooy ku santu ki waaye li tax nag kon mu teg nu jaamu yàlla gi mooy ngir sunu njariñ rekk la sunu njariñ dong moo tax yàlla teg nu lépp lu mun teg ci jaamu yàlla bokk na ca la ca gën a màgg ci jaamu yàlla googu mënu teg moom yàlla subhaana mooy li nga xam ne mooy koor koor yàlla tëral na ko yàlla teg nañu ko ngir tàggat sunu yaram ngir itim tàggat suñu yaram ngir tàmmal sunu yaram ci li nga xam ne moo mooy muñ ak dékku ay mettit yàlla dañu teg koor ngir tàggat nu tàggat suñu yaram ci ñu mën muñ ak mën a dékku ay mettit yàlla tàgg teg nañu koor ngir ngir jubbanti suñuy jikko yàlla teg nanu koor ngir defaraatal na sunuy bakken ngir itam bakken yooyu mën a tàmm bàyyi la nga xam ne mooy bànneex yi yi nga xam ne mooy xaraam yi ak moytandiku mboole seen li nga xam ne mooy yàlla tere yi yàlla teg nanu koor ngir ngir nattunu nattu jaam yi ana ci ñoom mooy gën a rafet jëf yàlla tëralal nanu koor ngir mu doon moyen bi ëpp doole bi nga xam ne moo nu yeggale ca ak ragal yàlla moom subhanahu wa taala mu wax ne mu wax ne ya ayyuha allazina amanu yéen ñi gëm kutiba alaykum siyam farataal nanu ci yéen koor kama kutiba ala allazina min qablikum nikki nanu ko farataale ca ña leen jiitu woon laallakum tattaquun ndaxte léegi ngeen ragal yàlla yal nanu yàlla xiir ci jaamu ko ak topp ko ak ragal ko yal na nu yàlla doole muccal ci seytaane yal na nu yàlla doole jàmmal ci suñu réew mi yal na yàlla doole jàmmal jullit yi fu nu mën a nekk yal na yàlla wesaare jàmm ci àddina bi yal na nu yàlla dimbali kattanal nu defal nu wér defal nu kattan defal nu man defal nu tal defal nu gëm yàlla defal nu ragal yàlla ba nu mën a joxe farata bi ni ko yàlla bëggee jooxe jaamu yàlla yi nga xam ne yépp moom la ci yàlla ak te bi digle ni ko yàlla di bëggee te nangul nu ko te may ñu ñu yeggali ko ci jàmm te nu yàgg koo fekkee allahuma inna nasaluka mujibaati rahmatik wa azaima maghfiratik والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة آمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على الإمام المهدي وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة